asalaamualeykum wa rahmatullahi wa ñoo ngi am mbégte bon taxaw fii ci troisième édition Semaine culturelle bu Cerno Alhaji Ahmad Dem Sokone ah, li ñu fi indi ñu tase feek jëm yu sell yi ak mbooloo mu tedd bi mu jukki ci lenn ci xam-xamu suñu maam suñu sëriñ alaaji ahmad dem sookoon li nga xam ne moom lañu du duppee woon tomb wi nga xam ne moom lañu fas yéene farafànce ñu ngi ko tuddee woon ahamiyatul bahsil ilmi lil muslimin fi dawi taalimi tafsiri diyaa nayrayni li cheikh alhaaji ahmad dem importance bi nga xam ne recherche scientifique amal na ko julliti selo orientation yi nga xam ne moom la alaaji ahmad dem jàngale ci téereem bu yéeme bi di diyaa nayrayni téere bi ñépp d'accord nañu ne tafsir quranul karim la waaye du n'importe quel tafsir ndax tafsir la woo xam ne dafa fekkoon aada fekkoon fi méthode wu yàgg woo xam ne moom la ulamaaw tafsir yi topp ngir er-, interprétation alquran alaaju ahmad dem am yëg-yëg ne interprétation yooyu nga xam ni moom la ñu doon firee alquran bokk na ci li tardeel jullit bokk na ci li tardeel julliti il est temps julliti jéem a gëstu alquran jàng ko comprendre ko ci anam boo xam ne dina nekk outil et source de développement loolu la Alaaji Ahmad Dem signalé ci introduction téere bi ci tom ni mu wax ñu ne bon dirasatul ulumil kawniya daruratun diiniya les études et recherches scientifiques nécessité religieuse la lu mëno la ñàkk la jullit yi jàng science jàng siyaas boobu buñ koy jàng baas wa nga xam ne ca la teg seen tànk ngir ko mooy alquranul karim mu ne ulamaul masahib jamian ajmau ala anna dirasata alulum alkawniya fardu kifaya wa anna al ayat alquraniya mashxuunatun bi sikri nahdati al asriya wa sikri ajaib bi sunati al ilahiya ne boroom xam-xam yépp ñi déggu ci ñoom d'accord nañ déppoo ne julliti gëstu bi ñu war a gëstu xam-xam yu xarale yi ngir mën ci oriente ci seen dund wareef la woo xam ne ñenn ci ñoom war nañoo jóg wuti ko ndax alquran dafa fees tepp ak i aaya alquran yoo xam ne dina jëfe ci jullit ñu comprendre ko te jànguñu science bon nag nañu réorienté waat tafsiru alquranul karim def ko ci anam boo xam ne dina sarwiir jullit yi ba ñu a ànd ak développement bi nga xam ne moom la technologie di woote loolu wax na ko ci introduction Dia Ounayri ñaareel bi alhaji ahmad dem mu ne ñu euh, dirasatul ulumil kawniya matlabun asri les études et recherches scientifiques demande de développement la ndax yàlla ba nga xamee ne nee na doom aadama yow laa def nga nekk suma kut lay ci kaw suuf bon lépp loo xam ne mooy base de développement yow mi nga xam ne yaa war a diri sa suuf en tant que musulman waroo cee def gannaaw bu ne bon loolu signification la ne jullit war nañoo jàng science ndax ñoom la yàlla chargé ñu développé àdduna bi ba doomu aadama mën a dund ci kaw suuf ci anam bu mu gën a yembee bu ko keneen defee da ko defal jullit yi ñoom la ko yàlla sar si ñoom musulman léegi nag borom bi subhanahu wa taala ci orientation alaaji ahmad dem mu nañu settantal li nga xam ne mooy composant univers bi adduna bi ni mu tëddee ak matière yi nga xam ne moom la doomu aadama di teg loxo wala mu koy gis jamono ju ne war na ci am ay jàngat ne il faut mu jàng science ngir mën a dund ci kaw suuf mooy li fahmi al xaqaiq min al ulum al kawniya la budda min tadaburi al anasir al muxtalifa mu jox la ci exemple mu ne na nga jël suuf ak ndox ak ngelaw trois composants yooyu ak éléments yooyu ban relation moo am seen diggante ci wàllu astronomie ak simi mu ne la bi ci gën a woyof muy ngelaw ndox tegu ci gën a diis ngelaw suuf tegu ci gën a diis ndox bon 3 degré poids moom nga am foofu mooy lan suuf comme première degré ci pois deuxième degré mooy ndox troisième degré mooy ngelaw mu ne nag boo demee ci alxuraan mu ne la wa si u sahaba siqal man yàlla may créer niir yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw asamaan niir yooyu la mu composé mooy la ndox mu ne pourtant ndox de moo gën a diis ngelaw te niir yooyu ngelaw moo koy déplacé moo koy puus pour mu disperser wu dem ci zone bi nga xam ne moom la yàlla bëgg mu taw mu ne bon loolu moo de nanga nga jàng relation bi nga xam ne moo am diggante ngelaw ak ndox ak suuf poids fan la ko tubaab bi wone importance bi nga xam ne moom la am mooy kirik yi nga xam ne moom la ñuy yëkkatee suñu oto bu dee dafa kirik dafa kiree oto bu yeb wenton bu créé ci yoon bi panoom yàqu wala yu war koo defaraat kirij bi nga xam ne léegi mooy yëkkati vingt tonnes boobu benn xale boo xam ne amul dix ans mën na ko yëkkati ci loxoom teg ko ci ron oto bi kirij boobu bouton ba ngay bës wala ngay visé pour mu yëkkati poids boobu du dara du ngelaw ndax boo paree boo koy démonté ngelaw li mooy genn pour poids ba nga xam ne moom la yëkkate woon delluwaat mu ne bon foofu gis nga alaaji ahmad dem ci relation bi nga xam ne moom la signalé diggante ngelaw ak ndox ak suuf si degré poids ci élément yi nga xam ne moo composé li doomu aadama di doj kaw suuf loolu boo ko julliti étiquette rek mun ne ci indi lu bare bare ci lu yéeme waaye malheureusement tubaab bi ñoo def recherche yooyu ba trouvé ko du ñu indi lu ñuy yéeme dégg fekk yépp alquran signalé na ko niir yi ndox la ndox ngelaw moo ko gën a woyof te ngelaw mooy puus niir yooyu di koy déplacer bon nañu xam ngelaw ak avantage bi nga xam ne moom la am ngir ñu nekk ñoo xam ne dinañ ci mën a basé ngir mën a développer ak création dégg nga industrie bare bi alaaji ahmad dem sookoon mu nañu il est temps aussi julliti xam ne am na lu bari yoo xam ne mu ngi occupé seen xel yi loolu c'est faux war nañ ci raxas seen xel mooy jàpp ne lu am rek dañ koy lié ak diine ak jege yàlla mu ne am na mbir yoo xam ne léegi dafa baasewul ci jege yàlla ak sellaayu nit ki mu jox la ci exemple mooy lan mu ne science wone na ne science wone na ne mën nañoo déterminer nit ki façon gi gént yi muy gént ak la mooy gis bu tëddee ci ko lam science wone na ne mën nañ koo détermine ci façon gi alimentation bi nga xam ne moom la nit kay lekk ak situation bi nga xam ne moom lay dund ak psychologiquement dégg nga lan la tëddee ci ko lalam ñu mën a orienter nit ki ci par force buy gént gént yi dafay nekk ay gént yu raglu wala mu nekk ay gént yoo xam ne gént baneex la loolu mën nañ koo déterminer ci teg nit ki ci disposition boo xam ne mooy tax mu mën a gént façon gént yoo xam ne léegi ñoo ko orienté ca na muy lekkee ak psychologie bakkanam dégg nga ak xelam jamono bi muy nelaw mu ne bon nag gént kenn du ci baase ngir saxal wilaaya wala kashf kenn du ci baase ngir saxal wilaaya wala lañu indil ci paas 37 ba 39 ci tome 8 ci diyaaw Nayreeni bi mu ne ngir confirmer la loolu nga xam ne maam la maa ngi la koy wax benn chrétien bu tudd Adwen Red Adwen Red tubaab bi xam nañu ko il était un chrétien boo xam ne dafa xëy gënt mu faatu ñu bind date de décès bind ko ci lan le 7 novembre 1910 ñu samp ko ci palaatu bàmmeel bi nga xam ne moom lañ ko suul loolu la gént te pourtant ba dafa jotee le 7 novembre 1990 ci la faatu ñu rob ko defal ko tableau boo xam ne la ñëwoon ci gént ba mooy date boobu lay faatu moo ca ñëw yaa xayta bu doon ci jamono jii ab sëriñ wala koo fonk gentu yéeme noonu mu amee noonu nga wooteel ko wilaaya wala kas il faut faire attention mu ne bon ruuxu nit ki li muy gis ci gént du wone jege bu mu jege yàlla dafa amee composant yoo xam ne bu amee nit ki safaa u ruuxam mën na ko imposé mu gént ay réalité yoo xam ne léegi ala kulli xaal dina am maa ngi ko doon wax Sokone le 31 bi passé benn màggatu séeréer boo xam ne danoon naan benn tat xëy rek ne waa dëkk euh, euh, benn ngoon rek mu ne waa dëkk ba bu kenn ci yenn xëy suba ci tool ndax ku xëy ci tool yi da ñibbisi ndax dana am lu rëy luy xew ci biir dëkk bi waa jamonoom gémmuñu ko ñu ne ah góor gi daal daa mandeeti rek ñu xëy takk seeni bagage dem ca tool ya ba yoor yoor di jot ñu dab leen ca tool ya ne leen boroom dëkk bi faatu na ñu bub seeni bagaas ñibbisi bu doonte nga ne kasfu la wilaaya la ci as màggetu séeréer buy naan sàngara gént gént ba nekk réalité alaaji ahmad dem wax na ko ba muy tafsir dégg nga sab a baqaraatin simaanin wa sab'in ijaasin sa suuratul baqara ndax buur ba fa tabaarakallaahu ci diine kéefar la nekkoon te mu gént lu am bon nag il faut ñu def attention te xam ne science li wone ne léegi gént mën nañ ko loole loolee alquran ci boppam da koo saxal alaaji ahmad dem mu ñëw ak ñun ci wàllu science navigation maritime ak relation bi nga xam ne moom la am ak coordination astronomique muy leexew ci jaww ji lan la am rapport ak li nga xam ne mooy xew ci biir géej bi alaaji ahmad dem ci tome numéro 8 235 ci diwaan ay ren bii nekk suñu kanam bi muy tafsir waxu borom bi subhaanahu wa taala wa yursilu sawaahiqa fa yusibu biha man yasha mooy lan fuudi reeg mu ne baatu man boobu kenn mucc ci ñi nekk sur ak ñi nekk ci biir ndox mi ci pour walla ne bon bu développement ak science demee ba wane ne sous yi nga xam ne bateau yi nga xam ne ñoo nekk ci biir ndox mi dañu leen defal ay paratonnerre tubaab yi sous yi nga xam ne léegi dañuy daw ci biir ndox mi dañu leen defal ay paratonnerre pour dënn baña wàcc seen kow te gis nga loolu alaaji ahmad signalé na ko foofu pour wane ne léegi wayu siibu bihaa man yashaawu lépp loo xam ne mu ngi ci kow suuf ak ci biir ndox mi ci jéeri beeg ndox mi yëpp ñoo ci yem ndax tonneer yooyu mën naa wàcc sa kow loolu war na léegi moom elmu maaniatu sawaahiq mooy paratonnerre yooyu nga xam ne tubaab yi defal nañ ko sous-marin yi dafay daal di méngoog lii nga xam ne moom la yàlla wax ci alquran ne wuyu sibu biha man ndax ñoo ñee nekk ci biir ndox mi dafay xuus ak seen sous ñu ngi te nekk tax taxta mashiatullah bon nag tonnerre yooyu mën nañu leen dal kon muy dalee ki nga xam ne moo nekk ci kaw suuf alaaji ahmad dem ñëw ak ñun ci lan santé publique mu ne santé publique nan lañuy saytoo askanub askan du ne dañuy financer ay milliards wala ay budget ci faj ak mu ne waaye quatre-vingts pour cent pour maintenir la santé publique mi ngi aju ci système alimentation bi nga xam ne léegi moom la ñu jox nit ñi da ngay nekk fii di wooteel ministère de la santé ay centaines de milliards am na système alimentation boo xam ne bu doon moom la ñu orienté woon askan sa budget du yéegi ci 10 pour cent ci budget boobu sax te santé publique dina am mu ne njax ca lekk ya lu ñu war a saytu il faut contrôler l'industrie alimentaire mu wax la ne dem na ba liir wi nga xam ne dañ koo ëmb ci biiru ndeyam waajuram bu jigéen la mooy lekk dafay def impact ci xale boobu physiquement et psychologiquement bon nag pour maintenir la santé publique ndeke jiitu na sax xale bi di juddu ca la mooy nàmp waajur ba nga xam ne moo koy nampal lan lay lekk bu judoo moom doomu aadama ji la koy aliment la muy la muy lekk loolee yépp ñu ko saytoo dinañu muccal dinañu noppi ci di financer lu bare bare bare bare ngir ñu maintenir suñu wér gu yaram waaw loolu boo demee maa ngi ko doon wax sama benn bulletin hôpital bu Thiès ma am ma dem siyaare ji ko jaar ci biroom foofu ma ne ko suñu sëriñ alaaji ahmad dem boo demee ci tome numéro cinq diggante page cent cinquante et ba deux ku leen ko traduiraloon yéen médecins yi nekk Sénégal da ngeen lem seen bagage yi jàng ji médecine Sokone cinquante paas alaaji ahmad dem amul lu mu bay ci lan ci alimentation ak ci demeen yépp bon loole mu bokk kéemtaan yoo xam ne léegi dafay wane ne il est temps julliti jàng science ak médecine moderne selon les orientations du Saint Coran ndax bayiwul ndax moom mi ko def kat loolu yëpp mu ngi ko jëlee ci arqaanu yàlla ji ci kaw loolu mu indil ñu moom alaaji ahmad dem sookoon benn mbir mu yéeme mooy lan mooy xatta texte alquraan yi ak hadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam science duñu ko mën a firi firi mu wér léegi ñu weddi alquran wala ñu weddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxam te la koy waral mooy ñàkk jàng science jox la ca misaal toujours ñoo ngi ànd ak yéen ci tome numéro 5 page 421 alaaji ahmad dem ne bu ñu seetee waxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy lan inna allaha lam inna allaha lam yaj'al shifaa ummati fi ma harrama alayhi deful suma weru xeet ci loo ne da koo araamal ci ñoom bi maana lépp loo xam ne yàlla da koo araamal boo ko consommé di ci seentu sant ak wér-gu-yaram doo ko ca am mu ne faire attention am nay produit yoo xam ne jullit ca d'accord nañu ne dafa araam te mu mën a dugg ci ay médicament wala ca ñuy lekk nit ki lekk ko métit ba nga xam ne moom la doon yéeg daa di wër bon nooy def science ak wax yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam loolu bokk yi xam ngeen moo am na matière bu ñu tuddee gélatine gélatine ñu koy décoder lettre E lettre E bépp médicament boo ko gis wala bépp ñam bu ñu paquet nga gis ci lettre E moo dene am na élément produit mbaam xuux te pourtant dañuy jëfandikoo médicament yooyu wér ci bopp bu metti wér ci gaañ-gaañ wér dégg nga ci biir muy metti te pourtant yonent bi ne yàlla deful seen wér gu yaram ci li mu araamal ci yéen nga di jëm loolu wér bon dooy def addis bi da nga koy sànni na yonent bi xamul lu muy wax te mu nekk adis bu wér ci saxiixul buxaari ak kutubu siha foofu la alaaji ahmad dem indi analis bu yéeme mu ne ajaasa aamatul ulamai attadaawi bil muharramati inda darura boroom xam-xam yépp ñi déggu ci ñoom d'accord nañu ne mën nañoo jëfandikoo lu sariixa araamal ci cas exception bu fekkente ne lu mënul a ñàkk la obligation moo la ci yóbbu dans ce cas boo ko jëfandikoo benn lor la ci jàpp di fay yéeg ci lan illaa ma turitu ilayhi ndegem yow mi nga xam ne léegi na ñàkk pexe nekkub tukulóor bu xiif ci àll bu gàddee yàlla ne mën nga góox ci sàngara ngir sowe sa bakkan mën ngaa lekk tuuti ci mbaam xuux ngir sowe sa bakkan nan ngay nangoo loolu ba pare bugg a bañ nit ki mën a jëfandikoo benn élément boo xam ne peut lam cay jëfandikoo mutul garaam ci wàllu médecine jàngaroom daadi wër nga ne mënoo nangu lii te nangu lee mu ne yàlla ci mbaaxam ak xërëcam ak xërëcam mooy def ki nga xam ne léegi ñàkk pexe moo ko tax a jëfandikoo li mu araamal dara du ko ca fekk dara du ko ca fekk waaye bu fekkent nag yow yaa ko tànnal sa bopp yow la neex nga dem naani sàngara yow la neex nga dem lekki mbaam xuux saa mu am nécessité bu war a tax nga jëfandikoo ko yàlla def lay nattu ba la nga doon faj bu wéree itam dina la jural beneen jàngoro boo xam ne moo gën a garaaw bon yàlla deful sa saafara ak sa wér ca la mu araamal ci ndax bu la fajee itam jural la beneen jàngoro noonu ngay déggee addis bi waaye mën na laa faj nag ci instant boobu ca la nga doon yëg gis nga analyse bu rafet bi nga xam ne moom la Alaaji Ahmad Dem indi bon il faut ñu jàng siyaas pour mën a comprendre alquran beneen bi alaaji ahmad dem nañu bu ñu jàngul science ñu def ay erreur ci tafsir yenn aaya alquraan mu jog mu bokk ci benn masal bu mu wax ci suuratu fusilat mu ne wax bi borom bi subhaanahu di wax ne qul a innakum la takfuruuna billasi si al arda fi yawmayni ndax da ngeen di weddi seen borom bi nga xam ne moo leen bind ci ñaari fan ulamaaw tafsir yu bari ak xutab xutbakat yu bari ak conférence yu bari ne yàlla moo leen bind ci ñaari fan xel ma yépp mi ngi dem ci fanu àdduna yi bon waxu la fan bi ñu xam astronomiquement ndax fan ci wàllu astronomie du mënula am fekk suuf nekk jant nekk fii ne dafa bind suuf door a bind asamaan bon il faut asamaan nekk fi suuf nekk fi jant nekk fi weer nekk fi di wër wër bi muy wër ci boppam jur 24 heures ci lañu door a mën a am calculu lu ñu tuddee fan wala bés bon boo bëggee tafsir aaya boobu ne al yowmul falaki mu ne dangay dugg ci erreur laysa maqsuudan fi haadihi al aaya al falaki mu ne lan mu ne la al yowmu ibaratun an zamani kawni shamsi fawqa al ard wala yutasawaru zalika qabla xalqi al ardi walsamaai walkawakib te bi yàlla wax loolu boobu bindagul élément bon bul tafsiré loo ne al yowmul bi nit ki xam Diya un-Nayraini page 111 112 tome numéro 15 mbokk yi tomb bu mujj bi nga xam ne moom laay mujja indi rek ci lima ma tënk mm-hmm. mooy al buxuusu al ilmiya tuahilu al muslimina lil wusul ila al xaqaiq ne les recherches les recherches scientifiques yi dafay yóbbul juliti ci ñu xam réalité yi nga xam ne moom la science indi mu jege leen mën a comprendre li yàllay wax ak ñoom ñu ne ahan mu ne waa ñu ne lan mu ne bu ñu jëlee waxu borom bi subhanahu wa taala huwa anshaakum min al ard yàlla moo leen bind ci suuf mu ne ñu bari ci ulamaawu tafsir yi dañuy wax ne ansaakum min al ardi bi xalqi abikum aadama minha moo leen bind ci suuf ci sos bi nga xam ne moom la sof seen maam aadama ci suuf alaaji ahmad ne sori nga sori nga nangul li wone mooy lan mooy nel ñi nga bokkal jamono jàkkaarloo ñoom ci saalu si bi ci le 15 décembre 2023 ne yéen ñii yàllaa leen bind ci suuf directement noo koy justifié yow alaaji ahmad dem mu ne lépp loo xam ne moom la doomu aadama di dundee ci ñaari éléments yi rek lay dellu al axsiya imma wa imma xayawaaniya mu ne al xayawaanatul manawiya almaniyu wal buwayda min ad-dam wa damu yatawaladu min al axziya wal axsiya imma xaywaniya aw nabatiya fa sabata annahu taala ansha al min al mu ne doomu aadama lépp looy dundee dafay dellu ima ci plant yi nga xam ne léegi ay végétal day dellu ci gàncax wala mu dellu ci yàpp gàncax yooyu ak yàpp yooyu lu niroog moom lépp ci suuf lay dund loolee la doom aadama di dundee mën a am deret ci deret boobu ci la ñuy jëlee almaniyu ak booy daat yi nga xam ne bu rapport sexuel amee doom mën caa juddu bon yow li la sof li la sos ci jamono bi ngay dund ci vingtième siècle ci vingt-et-unième siècle suuf la mu ne nag bu ñu bëggee wax ne bind aadama wala doomu aadama ci suuf directement dina yem rek dina doy rek nga yem ci lan dégg nga mooy lan xalaqakum min nafsin waxidatin wa basa minha zawjaha foofu moom ñépp ñëpp d'accord ne aadama lañ cay jublu ci suuf lañu ko bind waaye nag yow mii nga xam ne yaa ngi dund ci jamono boo mën a nekk itam boo seetloo sa bopp balaa ngay yéegal mbir mi ca maam aadama ci suuf lañu la bindee ndax éléments yi nga xam ne moo composé li la meññi lépp ci suuf lay dellu bon woon ne ansha'akum minal ardi saqal di sori aadama déedéet boobaa da nga sori tome numéro 7 page 179. macha allah. mbokk yi bonne conclusion. Mhm. dañuy wax ne alaaji ahmad dem bi mu indee lii yëpp ci rapport diggante religion ak science def ñu ne nag attention bu tarxiis mhm. bu tarxiis lan ci bu leen wuutal texte alquran yi lay ci science maanaam bu gënee alquran wér na ndax lii science indi na ko mu ne gravité la boo xam ne boroom xam-xam yu bari dañ ciy tabb alquran wax na dëgg ndax lii aaya bi wax science moo ko confirmé wala boog science wax na dëgg ndax lii science wax alquran moo ko indi nee ñaar yëpp ku ci dugg yaa ngi dugg ci erreur lu tax nee na ndax théorie scientifique yooyu fa muy tàmbalee am fa muy mujjee dafa mën a am changement xam nga boo seetee théorie ne suuf si daay wër wala jant bi daay wër ñoom Galileo ak ñooñu nga xam ne léegi ñoo ko fi ñu gën léegi théorie ba fa mu tàmbalee ak fa mu téeree wuute na naka noonu nasariyatu nisba mooy théorie des relatifs bu ñoom essentiel fa mu tàmbalee ak fa mu mujjee am na théorie bi am na ñetti étape door a stable bon boo bëggee jël science di ko layee alquran wala nga jël alquran di ko layee science yaa ngi def ay erreur ndax alquran fa am réalité boppam am indépendant boppam dafay wér ngir ne waxu yàlla la moo xam science yéggi na ca la mu wax moo xam yégul ca la mu wax jërëjëf alaaji ahmad dem ma toxal leen li nga xam ne moom la wax dégg nga en lettre mu ne walaysa lana an naltamisa linnusuusi alquraaniyati misdaaqan min annazariyaati alilmiya xataa law kaana nassu yattafiqu maa annazariya walquraanu saabiqun bi zaatihi ihtada al insaanu ila alxaqiqa allati qararaha am la wala yajuusu an yuxmala alquran ala ma yuqarriruhu ulamau lfalak wa gayrihim min annazariyat wala tuxmalu tilka nazariyat ala alquran mooy li wér pour ñu bañ a tarxiis nañu xam ne alquran est indépendant waxu borom bi la science buy évoluer ne tel indi dara rek jullite ah pourtant alquran waxoon na ko de mu dem ba mu yàgg science daal di changé ba indi leneen ba nooy def mhm. tere moom alaaji ahmad dem bon mbokk yi lii ab tomb la ci ñaar fukki tomb yi nga xam ne moom lañu indi woon ñu yem ci dixième bi incha allah di exemple ci wane ne bi du n'importe quel tafsir mhm. jasallahu wala jazaahu rabbul wara anna bi ahsanima yujsa bihi waadiu tafsiri lil umami ñu cay ndokkeel nag fami alaaji ahmad dem yépp tàmbalee ko ca xalif ba ca sookoon cerno omar dem ak rakkam wa nga xam ne moo fegoog moom di cerno alioune dem nga xam ne tey ñoom ñaari doom direct yu alaaji ahmad dem yu des ko suuf waaye tam di ci ndokkeel mboolem njombootam yi di seti fa tabarakallahu cerno Amadou Mamadou Dem bi ma ko gisee fii wax naa ko ci saal ba def nga lu rafet ndax fii lañu tase woon ak suñu waajur Cheikh Abdoul Aziz Al Amin radiyallahu anhu mu représenté njombootu suñu maam Sidil Haaji malik si jamono bi suñu sëriñ Mamadou Amadou Dem nekk xalif ñu def deuxième édition Cheikh Moustapha Sy ñeewre per santé njumootu alaaji ahmad dem Cerno Omar dem ngalu dem nekkoon xalif bi ñu ñëw ci troisième édition bi Cerno Cheikh Omar dem nekk xalif bi bon ñetti xalif yu ne Cerno Saydu nga def lu rafet ñetti xalif bu ne ku ci ne sa xilaafa mos na ci édition xamle kan mooy alaaji ahmad dem ak offram kon wàcco nga ak samaam Cerno Habib sa toogaay bi itam am na lu mu wund ndax seen waajur wu sell ba Cheikh Tidiane Sil Maktoum la Cerno di waxoon sëñ Moustapha si rek ne soxna Sofiya du dem bidiw la bu fenqee Sokone sowee Tiwaawoon ba ñuy jàng Sokone ñañu jiite woon ci daara ya dañu doon nattale ne Cheikh Ahmada Tidiane Sil Maktoum bu ñëwoon Sokone feet la doon